lu defu waxu lu ay di jàmbaat Alioune Mbaye Nder ndax baay ju baax la ndax baay la boo xamante ni am na jotu yar njabootam bi laaj mooy bi nga xamante ni Sénégal yi samp nañ ko ay weer rek ginnaaw bi ñu fi jàppee woon doomam ju góor ji di wuyoo ci mamadu mbay ak yamba ju bëri bi la yoon doomam bu jigéen bi wuyoo ci Adja Mbaye moom la section de recherche teg ñu koy toppee association de malfaiteurs ak vol en réunion ci jamono joo xamante ni seen baay Aline Mbaye Nder ma nga ca États-Unis ca Las di waajal génne benn album waaye mu mel ni rek jamono ji mi nga xamante ni nekk na ko ci naaj bi di liggéey di dóor waar doomam bu jigéen bi di Adja moom mu ngi fii ci Sénégal dal di dóor di sàcc al di def naka sudul noonu ci loolu la ko section de recherche teg loxo ba jëbal ko ki nga xamante ni moo di procureur waaye mu mel ni lii dugguleet doomi Aline Mbaye Nder ji Adja yàgg nañ koo xamee yu mel nii fépp ci Ndakaaru Njaay mbir yi nag nu mu demee Adja ak benn faram bu sant Sow ñoo nasoon seeni pexe ngir sàcc 2 millions ci ab appartement boobule appartement ki ko moom mu ngi wuyoo ci turu Moustapha Diagne moom Moustapha Diagne doomu alin Mbaye Nder ji akub gangam dan ko tegal ak ndëkk sërëx ca wetu mosquée de la divinité ba nekk ca Wakaam li ñu def nag mooy dañoo bàyyi ba nga xamante ni waa ji jegsi na ci biir këram ñu doxe ko ginnaaw jam ko ab paaka ci dënn bi daal di daw ak xaalis bi waaye ki nga xamante ni moo di victime bi ñàkku ci bakkanam lim am rek moo di ay gaañu gaañu yu metti ci ginnaaw bi mu daal di bind ab plainte jébbal ko procureur de la république ci noonu gendarmerie section section de recherche yi daal di ubbi ab enquete topp indice yi ba mu daal leen di jëmee ci Adja Mbaye ak ab gangam ginnaaw bi ñu leen tegee loxo nag ba ñu jàkkaarloog enquêteurs yi ñoom defkatu ñaawteef yi te Adja yi jiite leen weddi benn yoon li nga xamante ni moom lañ leen di toppee waaye rek ñenn ci ñoom ñi ngi xamale ni ki ko jiite du kenn ku du doomi Aline Mbaye Nder ji di Adja yi